ci bu juróom-ñetti waxtu jotee kon ñu bàyyi leen ak ki nga xam ne moo di Serigne Modou Mbaye Thiam ci xarala gi mu wéy ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ne moo di Makaarimal Axlaaq ngeen di ci ànd ak Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil ويا الكبير ما يهدي يمين للسقيم أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk taalibe yi yéen ci Touba Monde bi ci seen rajo Xassida Online Touba Monde bi nekk fii ci Touba Italie kàddu gi di ko fii ci Touba Milano ci studio sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Bachir ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar seen émission bi ñu tuddee Makarimal Akhlaq di waxtaan yoo xam ne dañ leen koy tànnal di leen ko indil bis ma ne li tàmbalee altine ba ajjuma bu juróom-ñetti waxtu jotee ci ngoon ki leen koy taxawal di seen mbokkum taalu Ibrahima Ndiaye Khalil. di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi xalifa général de Mouride di ñaan suñu borom yàggal ko fi téeméeral ko. di beral cant ki nekk ci wàllu xarala gi Serigne Modou Baye Thiam Baye Fall sunu waxtaan wi tey ñu am pas-pasab sof fin daanee démb mu di tontu laaj yi nga xam ne Serigne Mbacke Abdourahman mi ngi koy amal ci waxtu bu ne muy laaj yi nga xam ne mbokki taalibe yi ñu ngi koy indi di ko jëmale Serigne Mbacke Abdourahman ngir mu def ci ay fatawa def ci ay leeral ngir mu doon njàngale ci ñi xamutoon doon it fàttali ci ñi xaman ngir bañ a guddal nu wéyal jataay bi jébbal kàddu gu sëriñ Mbàkke kon sëriñ bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji maa ngi leen nuyu mbokk muy laaj nag ndax xaatim jigéen ngir mu nangu nga takk ko soxna ak xaatim ay nit ngir jubóole leen luy atteem atteem mooy ci njabar la bokk ndax njabar mooy lépp lu ñuy def nit ngir wulbati am xelam ba mu lu mu bëggutoon mu bañ lu mu loolu njabar la te njabar dafa xaraam euh, ci kabaa'ir yi la bokk ci bàkkaar yi maggi la bokk loolu euh, jullit bu ne da ko war a moytu wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj ne sarax lan moo ci jaale lan moo ci lan moo ci sunna jaale li ciy na mooy bu nit amee aw tiis ay mbokk jullitam dem defal ko defal ko fàttali ko amee metit ci fa faatu ñu xam ne faatu moom kooku faatu njëkkewu ko te du ko mujje fàttali ko daal luy tax xelam del si fàttali ko luy tax xelam del si loolu mooy jaal xam maa nag li ñuy def ñun di togg ay ñam dajale nit ñi loolu la ci doon cosaan mooy yonent islam mu la waxoon ba jaafar faatoo radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam daa waxoon ne togg leen aw ñam yóbbu kër jaafar ndax waa këram daa am lu leen soxal ba tëluñoo togg nga xam day mel ni doon cosaan bu nit faatoo ñeddeen nag moom togg ay ñam indil njabootam ndax tëluñoo togg nag fii safaan bi mooy am nit day faatu ba noppi ñu jël ñoom ñi faatu la ñooy togg di jox nit ñi loolu nag li ñu mat bàyyi xel mooy bu fekkee ne ci alali ki faatu la ñuy jël di togg moom lu mat a bàyyi xel ndax alal jooju moom bu faatu boo xasee faatu toxu na ci moomeelam dem ci moomeelam ndono yi te ndono yi tolloole wuñ ci kon di ko jël noonu rek di di di togg di joxe moom euh, du jaadu rawatina bu fekkee nay ay gone ndaw ay jirim ña ki nga xam ne kenn euh, sëñ te jël seen alal di leen ko dugalal fu leen amul njariñ xëy na bu doon ñëpp ay mukallaf doon ñu baaleex xam ne ñoo buñ meraasee ñoom alal yi ñu daan ne jël nañ ko def ci nangam te loola it doon togg aw ñam jox ko nit ñu lekk ngir yàlla yéene loolu yool ba yéene ki faatu yool ba su booba mën na bañ a ay waaye niñ ko defee ay xew nii moom loolu moom suñuy aada waaye du sunna si yonent bi moo ko jàngale noonu wallahu taala alam mbokk mi laaj ne ci lan lañ sukkandiku ba tax atte charia yi doxaluñ ko fii waaw xam nga ab atte moom nguur moo koy doxal ay nit nii duñ diine tëddeewul noonu buur bi yilif nit ñi ñoo war a doxal àttee lislaam ñun nag li ñu yàlla natoo mooy nooni diine ñu dul sukkandiku ci diine ñu yilif kilifa yi bañ fi nekkee it wedd yi nga xam ne dañ leen ko bàyyee woon yooyu daan nañ ci sukkandiku ci lislaam ba tey jii des na lu mel ni wàll sëy yi ak yu demee noonu ñu ngi ciy attew yem ci seeni atte bopp bañu dem ci ndax ba tey jii ku dem ci ci tribunal yi ci sëy yi ñu àtte la wala miraas ñu àtte la beneen àtte bu wuteeg charia waaye nag am na lu kilifa yi def ba tax euh, ñu mën leen a may nga sañ dem foofa toog sa kër àtte sa bopp yow nga dem ci ilimaan loolu leen la ci li nga xam ne ci liggéeyu kilifa la ak it ñi nga xam ne ba tey jii eh, danañ cawe yoon masalan tey ku ku ku ku jaa ku njaaloo te sange wut eh, ñu di ko dóor ba tey jii am na ay barab fu mel ne gede ku fa dem ñu dóor la. foofu nag mooy fi nga xam ne fi la fi la nit mën a yem amaa yeneen yi nga xam ne dagg la xoog wala rey nit wala yeneen at yooyu moom buur moo ko sañ a def waliyul amr ku yilif ñëpp kon état moo koy def état moo waroon nekk état bu sukkandiku ci lislaam su état yii nag ñoom lay dañoo wax ne laïcité ci la ñuy sukkandiku mooy euh, seeni mbir wéeruñ ko ci diine loolu natt bu ñu yàlla nattu la boo xam ne ñëpp ñoo war ñaan dox di ci jëm fexe ba teggi ko ci anam gu ci mën a teggee waaye eh, ab waru ko gërëm loo ndax munkar la munkar li gën a woyof ci nga moom mooy mu naqar la ci sa xol loo ci man ci wax nga wax ko waaye loo ci man ci jëf ngir mu dañ nga jëf ko moo tax eh, loolu war teefu jullit ñëpp jullit ñëpp ñoo war a dox ci loolu ci àdduna bépp nag daanaka la ndax daanaka néew na ci àdduna réew moo xam ne mbooleem atte yëpp ci lislaam la am nañu tane yenn atte yi ñu joyal ko ci lislaam waaye ci ca la yem waaye kon julli ñi dafa mel ne noonee lislaam moom ci mbirum atte moom ñoo dominer àdduna not ñi dañuy tudd alxilaafa al islamiya ba ba ñu euh, xeexee ba ci première guerre mondiale jëlee ko ci àdduna luy symboliser ne nguurug lislaam am na booba la gëj am réew yëpp ci réew julli ñi li ci ëpp seen i atte am na ci yenn wàll ñi ci tane yenn wàll yu ñu atte woo ci lislaam waaye du yëpp suñu réew nag moom léppam dafa jiyoog lislaam ci wàllu atte daanaka mën ñuy wax loolu Euh, code de la famille bii nga xam ne tey ci la ñuy sukkandiku gis nga biñ ko fi yëkkatee euh, kilifa yu bari ku mel ne Serigne Cheikh Mbacke euh, rahimahullahu taala defoon na ci jéego yu am solo ba ci téeram boobu di kalimatullahi hiyal oliya ngir bañ ñu ko waxtaan te kilifa ñu bari ànd ceeg moom ci kilifa yi diine yi waaye teewul nguur gi jaay doole teg ko ci kanam nit ñi ba fi mu ne nii ci lu ñaate nit loolu ñëpp ci war a dox ngir mu dañ li nga xam ne nag moom miñ ci sa loxo nga bañ ko te attewu masalan tey ab julit wërti dem di miraas lu tribunal ak lu mën a xew ndax boo fa demee ñu sa la miraas mu savaan ak charia yooyu moom ginnaaw bàyyee nañ ko julit yi mel noonu julit moom mën na caa bañ a dem yi nga xam ne dañ la caa forcé moom bu yóbbu la ca neexu la nga bañ ko ci soxal mu naqari la foofu lañ toll waaye nag ñëpp war a dox jëm ci nag fexe ba nit ñi ñu leen di atte ci liñ bëgg li liñ bëgg mooy li liñ war a bëgg mooy yàlla li bëgg ne nañ ci dox te lépp jàmm dong la nag wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj ne bu fekkante ne ate lislaam yi ñi ko war a def defuñ ko ndax am na lu ci war a tege waaw ñi war a atte buñ atte wu ñi bakkaar boobu bakkaar bu ñàkk a sukkandiku ci lislaam ñi ko ñi ko jiite te defuñ ko ñooy nekk ñooy day tegu seenu loos naka noonu képp ku ci man dara te defoo ko it ndax munkar la munkar li war teef mooy dindi ko kenn ku ne sa kem kàttan ki mën a euh, jël jël dooleem dindi ko bu ko defut day am bàkkaar ki mën a wax ba mu dañ bu ko xut day am bàkkaar ki nga xam ne da ko war a bañ ci xolam te bañu ko ci xolam kooku day am bàkkaar xëy na nag lu mën a xew mooy ki ñu war a mbugal moom te mbugaluñ ko loolu moom passé la pour mu tuub ku ñu waroon a rey masala ndax bàkkaar bu mu def waaye fi nekk kenn du fa bu daal di tuub tuub gu sell yàlla mën na ko jéggal ndax islam mosoon naa wax ci ko njaala woon ne ñaawteef yi ku ko defati yàlla suturaal ko na suturaal boppam te tuub ndax ku ñëw fi man kat wax ma ko ma dawal ci sa kaw atteb yàlla bi day mel ne sax boo defew ñaawteef te kenn yëgu ko jërut nettali mën ngaa dem tuub tuub gu sell bañ ko wax kenn bañ di la atte waaye ku dem ci yoon nag moom yoon day dawal ci sa kaw atteb yàlla loolu yoon islam daan na ko wax kon koo xam ne daa def ñaawteef ci barab boo xam ne attee lislaam daw fa parce que am na ko pour mu tuub kon tuub gu sell na tuub tuub bu sell yàlla jégal ko ñi war a atte loolu nag te atte wuñ ko moom ba ëllëg yàlla dana leen ko laaj wallahu taala alam eh, mbokk mi laaj it eh, lu wuutale diggante baatub iqaab ak adab bu dee ci wolof ñaar yëpp lay firi li ci borom xam-xam wax dañoo seetlu ne iqaab ñaare mbugalum àdduna lañ koy gën a jëfandikoo ci alxuraan karim mbugalum àdduna bu dee azab nag dana nekk mbugalum adduna dana nekk mbugalum àlaxira loolu daal la ñu wax ci teqale waaye ci luxa ñoo bokk lu ñuy tekki waaye dafa mel ne ci jëfandiku moom fi ko alxaan tudd fépp <laughs> baatub iqaab ci mbugalum adduna lay jëm bu dee azab nag dana ko wax ci mbugalum adduna di ko wax ci mbugalum àlaxira wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj euh, ne nit koo xam ne dafa defoon loo xam ne lislaam daawaraam daanum ci war a teg te moom mu bëgg ñu teg ko daan yooyu nu muy def bu dee ci barab yi mel nii waaw am na ci daan yoo xam ne de mën naa dem ci ay nit ñu defal ko ko lu mel ne caw yar yoon ku njaalo te nekk fekk sangeewut ab célibataire walla ku xas fu nit ŋàññi nit tumaal ko lu njaalo yu mel noonu nga xam ne ko war a caw juróom-ñett fukki yar bu dee kii njaalo ñii di ko caw téeméer yar yooyu moom gede gi ci Touba dañ koy def eh, jàpp naa ne it du ñàkk xëy na yenn barab bu ñu koy defee loolu moom nit ki bu demee. Eh, ba ba fi ne nii da ngay léeg-léeg eh, man ma sama toog ci barab dégg mbokk mu yoo mel ne mbokk ngir bëgg ñu caw ko yar yoon loolu moo tax dana di am ñooñu mën nañ ko ndax loolu lor nekku ci ngaañ nekku ci amaa nag lu mel ne rey ak dagg cër moom loolu ay nit sañuñ ko loolu état ko sañ foofu moom koo xam ne eh, loolu da koo dal ci réew mu mel nii passé na tuub rek ginnaaw amu yoon wu koy tege néew fi te yéen waxoon na ne ku ci defati yu mel noonu yàlla suturaal la suturaal sa bopp te tuub ku mel noonu na tuub li am solo mooy tuub nag tuub bu sellee nag mooy dootoo ko defat ba loolu moo ci am solo waaye waxuñ koo xam nag day tuub ne tuub naa bu ëllëg mu defat ko tuub moom ñu ko mag ngi doon misaal day mel ne joggi aw xal day doon loo xam ne ba koy def teyoo ko te it ca saasa jóg nga ca te rëccu nga loo ko doon defee te fas yéene dootoo ci delluwaat ku ci dajee incha allah yàlla koy jégal waaye bu dee yi nga xam ne ay caaw ak yooyu la moom euh, ci barab yi man su koo def jàkk mën ngaa dem ci jàkk ilimaan de wala yebal kenn ñu caaw ko yar yoon euh, mu dem yoonam waaye bu dee daggee loxo wala rey na moom loolu état ko sañ waaye ay nit sañu sëriñ mag bi radiyallahu anhu ci jamonoom lu mel noonu mosoon naa xew waaye mag ñi wax ak moom ci wàllu googu ba mu dellu ci ginnaaw radiyallahu anhu demee ci an-Nuzul Mubaaraka euh, lu mel noonu nu mu fonk woon diine ak nu ko ñore woon waaye dafa am loo xam ne ci loxoy état la nekk ci loxoy état la nekk wallahu taala alam mbokk mi laaj ne ilimaan ju doon ñëw di xutba tàmbali xutba nee na waa jàkk ji yëpp wax ko kaw ne ko nekko ko noddaguñ mu daal di dagg xutba bi muy laaj ba xam ñooñu di wax te ginnaaw bu ñu xasee tàmbali xutba wax dagganatul kon ndax ñooñu di wax am na ajuma waaw am nañ ajuma ndax saa bu ilimaan dafee lu jaadu wut xaj di ko dagan te bàyyi sunna la kon xëy na da ko fa bàyyi sunna la ndax ci biir xutba sax bu ilimaan euh, taggoon ku tëgguwut wala mu xas ku xasuwut nit ñi sañ ñoo wax weddi ko kon bu fekkente daa fàtte wala mu juum ba def loo xam ne warta demee noonu ndax dañoo war a noddu door a xutba noddu gi moo war a jiitu mooy jiitu xutba bi kon waa dañ ko yee ci loolu mu dellu ginnaaw loolu am solo la dara nekk ci wallahu taala alam mbokk laaj ne fukki nit ñu mat di tukki Eh, ndax sañ nañoo bu àjjuma jotee bu waxtu julli jotee ñu taxaw jiital kenn ci ñoom mu jiite leen àjjuma eh, li may njëkk leeral mooy ñoom ñooñu di génn di tukki bisu àjjuma bu fekkee ne bi ñuy génn tisbaar jot na maanaam digg bëccëg jot na booba tukki day xaraam bisu àjjuma ku àjjuma war ngay tukki ci waxtu dafa xaraam bu fajar xasee jot nag araamu doy sib nañ ko nga xam ne bis yooyu ku bëgg a tukki kon li gën mooy nga jiitu fajar bu dul loolu da nga def luñu ñu sib maa def lu araam bu nag boo demee fa fa nga jëm wala ci yoon bi bu ajjuma jotee musaafir ajjuma waru ko lu dul daa nekk muqiim dem ci dëkk boo xam ne fas na fa yéene am lu man ñeenti fan suba wala ko ajjumay war waaye war goo xam ne day fekk mu war waa dëkk ba noppi bu demee ci jàkka ja fekk fukki nit ak ñaar ñu ajjuma war moom mën naa ñëw ànd ñoom julli waaye bu fekkee fukki nit ak ñaar néewuñ fa ajjuma warut mbooloo mi suba moom du ko war waaye ku ajjuma wërati nag bu ko julee mu baax masalan tey nit ki mën naa nekk ab musaafir dem ci barab ajjuma waru ko waaye mu dem julli ji boobaa ajjuma ji day taxaw day wuutu ci moom tisbaar ji mu waroon julli kon fukk fukk ñooñu ànd bu dee ñoom rek lañ ñoom ajjuma wërti taxaw ci ñoom ndax buñ doonoon ay dëkk sax fukki nit kese kese ci masab Malik sëñ ñoo julli ajjuma faaw ñu mat fukki nit ak ñaar ak imaam ajjuma door wér door leen a war waaye su fekkee nag ñu ajjuma war ba yow sañ mi ajjum warut it sañ ngaa ñëw ànd ca mbooloo ma julli wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj nee na feral daa gis bu nit bu ñuy feral du bind dara ci mburu jox gone muy lekk muy laaj doxam ndax nit mën naa feral gone te du lool waaw loolu de suñuy aada yu ñu def la xëy na ci nit ñu baax ñi ñoo koy jëfandikoo ak it gone xam nañ ne bu nàmp ba mu yàgg ñu jekk-jekk feral ko léeg-léeg mu am ci ci ci Eh, lim meenoon ñu xëy xëy bëgg ko xañ xëy na tax ñu bind loo xam ne nag dana ko dimbale ci mu gaaw a miis yu demee noonu waaye dëgg-dëgg liy feral mu bàyyi soow bàyyi nàmp eh, dañuy wax sax ne matal ku matal nàmp ñaare boo ko bindul dara it xanaa boo dee ba mu jëm sori nga tàmbal di ko jox lekk day mujj dem ba duutu soxla eh, soow mi nga xam ne xëy na li ñu bañ daal bàyyi ko rek niñ ko baaxoo def fii nga xam ne dañuy xëy benn bis rek mu daal di bàyyi nàmp loolu moom daa bokk ci li ñuy li ñuy tere bëgg ñu di ko moytu ndax loolu mooy waral xiiboon yooyu demee noonu waaye bu fekkoon ne bu ñu koy waaj a feral dañuy tàmbali di soreele nàmp bi bu daan nampu eh, juróomi yoon maanaam ñu wàññi ko muy ñett bu mu yàgg ñu wàññi ko muy ñaar bu mu yàgg ñu wàññi ko muy benn dana mujj bu koy bàyyi dootu ko yëgati dootu metti xëy na nag eh, jekki-jekki yi jekki bàyyi loo ko ko benn yoon bokk na ci li waral ñu di ko bindal ab téere ak di bind loo xam ne day tax mu miis Euh, su dul loolu jooy yu bari ak ak xiibur mën na caa topp euh, loolu la jàpp ne mooy cosaan li waaye bari na ñoo xam ne euh, dañuy nàmpal ba nàmp bu mat rek fu mate rek buñ jaaree ci jéegu yi war a jaar gone gi mooy jékki-jékki fat bàyyi soow bàyyil ko boppam ndax day ba yëg ne soxlaatu masal tey bu nàmpee ba tàmbalee war a mën a jëfandikoo aw ñam ñu tàmbali di ko joxe ñam di ko boole nàmp bi day mel ne buy tàmbali léppam nàmp lay doon waaye bu dee ba ca kanam day wàññi nàmp bi di di jëfandiku lu mu gën a dox nga gën a wàññi nàmpal bi di yokk jëfandiku bi mën naa dem ba nàmpal bàyyi mu bàyyil boppam su boobaa dara nekku ci waaye li ñu def nii nag xëy na aada yu rafet la ndax li ñu bind alxuraan la ay ñaan baax la yoo xam ne eh, day dimbale gone gi ngir mu gaaw a fàtte gaaw a miis eh, lim tàmmoon waaye doonul loo xam ne nag day lu mënta ñàkk ci nàmpal nga xam ne ci feral nga xam ne faw ñu def ko baa boog dis ko jàpp feral déedéet wallahu Euh, mbokk mi laaj ne euh, li ñuy wax ne tukki alal ba daganut wala yu mel noonu euh, déedéet tukki alal ba duñu wax dagan wala daganut xay na baaxut wala yu mel noonu waaye charia moom xam nga buy wax nangam dagan na wala daganut lay wax ci charia nag moom bis buñ ni dee su ko tukki xamuñ ko ci xëy na nag yi xew am mag mu jekki-jekki ñu ilham ko dara moytul bi sàngam mu xëy na mu digal ko ak njabootam doon kilifa loola tax mu law ba tasaaroo ñu bari yëg ko di ko ca topp lu mel noonu dana di am xeet yu mel noonu ci yooyu la sa bopp waaye du mbirum sariya moo xam nag dañ naan la ku xët am bakkar du sariya bu ñu naan ku xët yu bari ci yu mel noonu ci yu ñuy moytu cosaan la loolu la woon nit la sunu lañ xamal dara mu jëfandikoo ko digal ko njabootam waaye léeg-léeg kilifteefam yaatu ba loola law ñu mujj bind ko fenn. mu mel ne xam-xam bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy tasaare ñu di ko jëfandikoo la fekk ci yi ñuy tudd ay xusuusiyaat la sunu borom day jagleel ay jaamam léeg-léeg léeg-léeg mu yenkeewal ak jaam wax ko dara waaye dara jooju nag taxul mu nekk charia yoo xam ne dañuy géttal nit ñi di ko jëfandikoo kon e, tukki ci ak ñàkk ci tukki ay bàkkaar yu aju ci waaye nag li ma tawaay xel mooy e, nit buy def na def lu darum xelam. koo xam ne nag yëg na ne lii kat ni nga koy wax te xelam dalu ci mu bàyyi ko moo gën ndax daamaa yari bu ko ilaa ma bu ko loolu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ci des it balaa mu wakkal bil muntiq wax ju la wax ne balaa ci wala mañ la nekk masalan tey am na loo xam ne mën ngaa jàpp ne ayut ci charia waaye bu la nit ne nangam baaxut soo ko mënee moytu moytu ko waaye moytu woo ko ngir ne dafa araam ci charia wala dañ ko sib waaye donc moytu ngir wax di ci jib ñaar yooyu du ma tax xamee la te bàyyi dara ngir ne lislaam moo ko dëgganalut wala bàyyi dara ngir ay wax yu ci am te yow nga bëgg a mucc coow yooyu waaw yooyu ma ta waaye daal bari na ci ay bis ak yi mel noonu yu ñuy tere du mbirum sharia du mbirum nit ku baax nag mën naa gis dara ci ay jamono ñu wan ko dara mu tasaare ko ci njabootam loolay dox ba mu tasaaroo ci biir nit mu ñu bind ko ci ay téere nit ñi daw di ko law lay waaye nañ jàpp ne loolu bokkut ak sharia sharia moom li muy wax mooy daganawul daganul bu dee loolu nag xamuñ ci charia bis buñ ne tukki ko daganut lu dul bisu àjjuma ci ku àjjuma war tisbaar jot muy bëgg a gën dëkk bi di tukki loolu dafa xaraam bu fajar jotee sib nañ ko wallahu taala alam mbokk mi wax ne koo xam ne dafa mare soxnaam daan na ko fase naa la fase naa la ba muy ñetti yoon muy laaj ba xam ko mën na koo jëlaat ak koo xam ne dafa yebal soxnaam na ko demal seen kër ne ko bu la neexee mën nga bañ a dellu si muy laaj ba xam fas wala déet waaw ki wax ne ko fase naa la fase naa la tudd ko ñetti yoon de dañ koy laaj lu mu jublu ci baamu gi bu ci yéenee feddali bu njëkk ba dañuy jàpp lu mel ne fase la waaye bu ci yéenee sosaatum fase nag ñetti fase lay doon kon du ko sañ a jëla dul baax de saw ji kon faaw mu wax diggante ma yàllaam bi muy waxaat fase naa la ñaareel yoon ndax dëgëral bu njëkk bi la jublu wala day sosaat meneen fase foofu nag am na lu lu mat a bàyyi xel loo xam ne mag ñi daan nañ ko wax wax nañ ne Sëriñ Mbàkke Busso daan na ko wax ne pasem jaahil batta la moo tax mag ñu bari mosuñoo nangu ñaare nit fase soxnaam di ko xamut bëgg koo jëlaat ñu nangu ñoom xam ne ay kilifa yoo xam ne dañ ko daan bañ ci daa mel ne ci foofu lañ ko tegoon ndax dañuy wax ne pasem euh, rajan yi boroom xam-xam moo ko man ànd ak sagoom ànd ak dal fase soxna si ngir jublu ci yar ko waaye am na ci ñoo xam ne ñaari saa bu ñuy fase jamono ñi fase fase moom soxlaatuñ dara ci jigéen ji dañuy dem ba ginnaaw bi ñu waat waaye jamono yi ñu fase moom tàggoo tàggoo bu faaw lañ jublu yàpp daane loolu moo tax ñu daan wax loolu waaye nag buñ delloo ci charia euh, ci kaw rek nag faaw ñu laaj lu mu yéenee wax gi mu waxaat parce que bu ci yéenee euh, baamu bu njëkk ba rek ngeen fàttali ko nag mel na fase la moom suba euh, bu iddaje jeexut pasan pay la la mën na ko jëlaat ci dulu ñu di ko fas da koy wax rek maanaam la fase woon génn naa ci bu idda ji jeexee nag sañ na ko takkaat waaye day ngorowaat bañ may ko amma bu fekkee nag day jublu euh, yoon wu nekk jàpp fasem boppam fase naa la faseeti la faseeti la bu fekkee loolu la ko wax moom su boobaa ñetti fase la ci masab Malik su boobaa du ko sañ a takkaat lu baax de soo ji amma ki wax soxnaam ne ko man ngaa demal seen kër te bu neexee bu del si mooy dañ koy laaj lu jublu ci loolu demal seen kër bu ci jublu fase fase la ba ci jóge demal toog ba mu soxla fase la bu la neexee bu dellusi it dellusi ndax dellusi lan dellusi ci kër gi ak fase bokk mooy dañu laa lim ci jublu ndax mën na ja jublu bul dellusi ci kër gi toogal foofa su ma fekk la fa moo tax faaw ñu laaj yéene ci bu dellusi ci kon lam yéene nag loolay am bu ci yéene fase moom la boo ci yéene du fase lay jàpp du fase dañ koy bàyyi bàyyi yàlla mu wax lu mu juboon ci loolu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee daa bëgg ku ko waxal ñi araam ku leen takk ci lislaam xëy na bari na waaye lim ci ñenn loolu nag jàpp naan du ma jàpp di man ndax mbir moom benn ne da koy mën a lim ba mat ma nga bàyyi te loolu nag jotaay yu mel nii di ko limbam jeex eh, du jàpp ni jàpp naa ne li gën moom mooy mu dem dende ko xam mu limal ko ñooñu wala bu jaree it mu doon ab yi ñu beral ko mu waxtaan ca mën naa nekk bu soobee yàlla waaye fii moom jàpp naa ne tontu yu tënku ndax boo gisee addila yi sax duñ ko faral di indi ngir tënk la rek ku bëgg a nag dem xóotali ko waaye boo bëggee détail loolu lépp nag loolu moom jotaay bi du ko laaj ñu ngi koy jéggul bu fekkee nag itteel na ko moom mën nañ ko wutal jotaay buñ ko ber mu nekk ab jotaayu boppam ndax loola bind bu ñu joxe la boo xam ne nii mën naa def ay minutes yu bare bare nag jërëjëf eh, mbokk mi laaj moo ne nee na wàlli ak wilaaya ndax dañ koy judduwaale wala dañ koy faggu waaw wilaaya bu fekkee ne ab cër la bu yàlla di maye jëfa koy maye nit day jëf bàgg ko lu mën a xew nag nit ñi moom ak nar a baax ak mën a baax la ñuy judwaale loolu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ne doomu aadama ju ne fitara la judwaale mooy mën a baax waaye li ko wër nag mu ay way juróom ñoo koy mel ni mel ko de mel ni ku juddu mën ngaa doon ku baax ndax waliyu mooy ku jaamukati yàlla ñi ragal yàlla al muttaqoon ñooy awliyaullah ñi am taqwa ñooy awliyaullah loolu nag la nit ñëpp di judduwaale waaye nag li la wër moo koy suuxat mu màgg not li ci des mbaa ñu sàggane ko li ci des nag maanaam waja feeñ su boobaa nag mën nañoo wax ne dañ koy judduwaale ndax mooy cosaan ci nit waaye mën nañoo wax ne dañ koy faggu ndax nit du ko am te yarewuñ ko ndax lim ci judduwaale ngir mu mën ko jariñoo faw dañ ko cee toq yar ko ca suuxat ko bu mën a màgg allahu taala alam euh, mbokk mi laaj ne na góor goo xam ne dafa faatu ci midi nee na ñu dem ba trois heures trois heures soxnaam faatu muy laaj ba xam soxna si dina muuru wala du muuru waaw am muuraaye mooy li tàmbalee midi ba trois heures ndax jigéen ju ëmb bu buñ ko fase wala borom këram faatu iddaam mooy bu amee doom kon diggante midi ak trois mooy diir bi nga xam ne mooy iddaam xëy na muuru nag mooy tëñ ji day ànd ak idda euh, day mel ne liñ soxla dëgg-dëgg mooy idda ji mooy du saña euh, sëyi feneen du fanaan feneen euh, ba ba idda mat tëñ ji gi mi àndal muy muurug nag mooy ñaawlu gi mooy du toilette jëfandikoo ay cuuraay wala ay parfum wala borom xet yu neex yi mel noonu du du takk ay takkaay du du taaro yére yi mu gën a rafet lii du ko sol loolu nag kon diggante boobu muy muy iddaw mooy bi borom kër bi faatu ak bi mu amee doom diggante boobu lay ñaawlu mooy tëj gi nga xam ne bu ko yëgutoon ba ba ba far ba am doom sax nag du ci jot jaar day jeex mu jeex ndax euh, teeñ yi idda bokk ci nga xam ne kenn du ko fay nit bu faatu woon te soxnaam yëgu ko ba mu des juróomi fan masalan mu faatu ñeenti weer soxna su door ko yëg fukki fan lay lay lay lay lay lay lay lay teeñ ji ndax lim yëg lay tëj ji bu ko defee idda ji nag mooy toog gi mu toog euh, deesu ko maye du fanaan àll ba ba idda bi mat deesu ko maye deesu ko ngoro te du fanaan àll bu defee nag ñaawlu gi koy booleel bu dee ku borom këram faatu moo tudd tëj ne bu dee fase moom amul tëj ji allahu taala alam mbokk mi laaj nee na li ñuy wax nuuru nee na ci marché bi laaj nee na daa am ñaari xeeti nuuru yu am nee na kenn ki day dem euh, waxaale yow bi ngeen jubóo mu dem wëri marchandise mi indil la ko ak koo xam ne day dem indi marchandise mi ba ñëw ngeen door a waxaale waaw yooyu de biñ ci tere biñ tere mooy jaay li ñuy wax bayon maa lay sax ndak li ñuy tere mooy nga waxaale client bi euh, ba juboo ci njëkk nga ne ko toogal ma ñëw door dem nag jëli marchandise ma fa mu nekk loolu la ñuy tere ndax am njaay ak sax saa bu ngeen waxaalee ba juboo rek njaay ma dog na léegi ameel nga ko marchandise mu ameel la xaalis soo demoon ci boutique boo fekk marchandise moom a jeex fa ba mu yokku da ngay am jafe ndax wax ngeen ba jubóo na faaw da kon jamono yi ngay jaayante moom li ñu ko jaay amoo loolu nag bokkut rek mu ñëw ne bëgg naa nang ma ne ko toogal daal dem ci boutique jël ko fa ñëw ne ko mi ngi nii nangam laa koy jaay ngeen waxaale ba jubóo loolu dara nekku ci waaye li ñuy tere mooy nga waxaale moom ba juboo waaye soo ne ko xaaral ma ñëw dem andi marchandise ma ba mu gis ko ngeen waxaale lu ngeen ci jubóo baax na waaye daal waxaale ba ne nangam lay jar ba mu ne la baax na nga ne ko d'accord mu ne waaw mun la xaaral ma ñëw loolu la ñuy tere ndax jamono jaay nga ko loo xam ne jamono yi ñu koy jaay amu ko wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj ne jigéen ñi nga xam ne dañuy njot loolu ndax luy attab ci lislaam ak ñi nga xam ne dañuy bënn seen bakkan di ci def ay jaaro waaw njoccu day mooy ñaas mooy ñaasu rek aw xeet la ci ñaasu loolu dëgganul ñëw na ci xadis yonent bi alayhi salaam rëbb na kuy jokk ko waram ak kuy ñaasu kon di di di mbugal saw yaram mettita saw yaram ngir taar dafa xaram naka noonu bënn bakkan it ci lay dugg ngir bëgg ab taar daganut lenn lañ maye ci loolu mooy bënn am nopp ci gone gu jigéen moom dagan na bënn noppam ngir takkal ko ci ay jaaro te loolu jamono yonent bi alayhi salaam jigéen ñi dañ ko doon def yonent bi alayhi salaam ne fi alxuraan wàccu tere ko sunna terewu ko loolu mooy wane ne dagan na waaye foofu la yem am na leen lu nit def nag ngir taaral boppam te di mbugal aw yaram wala sopp bi nu yàlla nekk ci du dagan te bënn bakkan nag ay jumbux ak ah, yu mel noonu ci lay dugg ñaasu mi ñuy waxit nag ci yooyu lay dugg bu fekkee ne ngir bëggub taar la dafay ndax dee mbugal sa bopp ci loo xam ne ngirub taal rek la loolu yi ci nekk euh, bokk na ci xikam yi tax lislaam tere ko kon yooyu daganul ci ab jullit mu ko def wallahu taala alam mbokk mi laaj ne kuy asakaal ab jaaykat buy asakaal marchandise day xool prix bi muy jaayee wala prix ko jënde woon loolu de ci boroom xam-xam yi wax prix en gros bi lay jël prix en gros njaay mi lay jël Euh, ndax kuy asaka te doon jaaykat boo xam ne du denc xaalis du denc marchandise day jënd marchandise rek lu jar mu jëndaat leneen indi teg kooka bu asakaal jotee day xool li mu yor ci xaalis marchandise mi it mu xayma ko kon du jaay waaye da koy xayma xayma nag walooru marchandise mi lay jël loolu nag mooy tolloog prix en loolu lay jël boole ko bor yi nga xam ne ameel nañ ko ko te waxtu fay ko jot te yaakaar ne dinañ ko ko fay te muy xaalis loolu lépp lay dajale bu matee nisaab mu génne ko asaka wallahu mbokk mi laag ne ayib nga xam ne day dal ñaari way dencante e, te bu ko kenn ki man leen a tàggali ndax day war wala déet xam nga loolu al uyub al mujiba lil xiyaar lañ koy tudde ayib la yu waral xiyaar kon mooy wane ne du far force ay jàngoro la yoo xam ne bu ko góor bu góor takkee soxna fekk ko ca sañ naa ne man du mu wéyal sëy bi fii laa ko yemale bu buñ mayee jigéen mu dem fekk ko ci borom këram sañ na ne ma itam sëy bi ko yemale loolu on yóbbu la yuy waral xiyaar kon nekkul loo xam ne far force la waaye bu fekkee ne kam dalut mën naa muñ toog noona ndax ayib la yoo xam ne day waral jaxasoo du mën a amati jaxasoo bi suñ ko bëggee la waaye bu leen neexee ñu ànd di sayit ba ñu jaxasoo donte nag luñ tàmmu la wala boog bokk na ci li tax ñu ñu ànd waaye kooku ci mën a muñ sañ na loolu kon nekkul ayib yi yoo xam ne bu amee faw dañuy tas say waaye day waral xeer wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj ne ku ñëw ci jàkka ji fajar njëkk ñuy noddu noddu fajar ndax mën naa julli ñaar rakkay fajar wala déet waaw ñaar rakkay fajar waxtoom mi ngi tàbbi ginnaaw bu ñu noddee feeg nodduguñ ci guddi gi lañ nekk kooku guddi kee mën naa naafila mën naa def tahiyatul masjid waaye du saña def ñaar rakkay fajar ndax waxtoom tàbbeegul suñu noddee noddu salaatu nag booba la waxtu fajar di tàmbali la koy la koy door defee kon bu ñëwee ci jàkka ji lu jiitu ñu noddu moom amee yeneen naafila yu bëgg def loolu ci guddi mën na ko def mën naa def tahiyatul masjid foofu yëpp waaye bu fajar xasee jot nag moom euh, bu dikkee ñaar rakkee fajar rek lay def allahu taala alam euh, mbokk mi laaj nee na dafa dégg ñu ne nit ku ne bu ëllëgee sa xarum tabaski ci ngay war jegee ko siraat muy laaj ba xam loolu waxi wolof la walla ci diin la waaw ab xadis rod na ci de waaye du xadis bu wér xadis bi wax ne na ngeen rëyal seeni tabaski ndax mooy seeni war a ci siraat waaye nag li ci borom xam-xam wax mooy du xadis bu sax kon daal du wax ju wér wallahu taala mbokk mi laaj na bu ñu liqaami ba noppi nee na nit ñi wax naan wahdahu la sharika lahu ñi wax muhammad rasulullah wax yooyu daal muy laaj ba xam la ci sax wax yooyu di benn saxu ci ginnaaw liqaam daal euh, kabar moo fa sës xanaa ilimaan yamale sàppe yi am na nag ci boroom xam-xam yi ñuy wax ne liqaam ak nodd la li ñu santaane bu ñuy nodd ak bu ñu noddee ba noppi loolu la ñuy santaane ñoo ñuy wax ne kon bu ñu liqaam ba noppi nit ci mën naa julli ci yonante bi ñaan ñaanuk wasila googu yute salaam allahuma rabba hadi daawati tàmm am na ci boroom xam-xañu ko wax waaye yu dul lool nag rotul moom ne nañu wax muhammadu rasulullah wala wahdahu la sharika lahu loolu moom xëy na nit ñi tàmm di ko wax nii rek waaye saxut ne moom dañ koy wax ginnaaw liqaam waaye daal am na ñu wax eh, ci mazhab bi moom waxuñ ne lenn lañ ciy wax ci masab imam malik bu ñu liqaamee daal bu liqaamee daanooy dañuy kabbar imaam daal njëkk muy kabbar nag se bëgg nañ mu yemale sàppe yi euh, waaye nag teewut am na ci waroom xonxo yi ñu wax ne eh, ak noddu noddu yu tey sam tudde na ko liqaam liqaam maanaam tudd nañ ko noddu te li ñu santaane ci noddu moom it ma ngi def ci liqaam mooy ne bu nodd nodd gi daanoo dañuy julli ci yonent bi ñaanal ko shafaa ñaanal ko wasila wasila bu mu wax ne ku ko ñaanal mu ramm la boo lëggee muy ñaan googu ñuy faral di wax ginnaaw bu nodd gi daanoo loolu am nañu ko wax waaye ci mazhab Maalik bi moom ginnaaw noddu ginnaaw li xam amul lenn luñ ci wax lu dul taxawal julli wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo dénk alal eh, nee na ndax sañ na caa yaxantu te tàggu boroom yëgu ko ak bu ci yaxantu woon ba am ca bénéfice ndax mooy moom bénéfice bu wala déet boroom xam-xam dañuy wax ne loolu bokk na ci li ñuy tere di eh, yaxantu ci alali jàmbur juñ la dénk téegu ko ndax wóorut jalgati la bu amoon nag ba ki def ko ba am ci bénéfice su boobaa dañuy wax ne moom moom bénéfice am waaye ci ngër mi nag na ci borom xam-xam ñu wax ne bénéfice boobu moo ko moom waaye li gënoon mooy mu saraxe ko ndax eh, eh, tooñ gi mu tooñ xëy na loolu sarax bi faral ko ko waaye nag alala wallahu taala alam mbokk mi laaj it nee na koo xam ne day liggéey foo xam ne ku koy liggéey loo du jullit te mayuñ leen fa fa ñu julli fa nu muy def ndax day dana saña dajale julli ba génn fa fa dagan ci ab jullit nag muy liggéey foo xam ne kenn du ko may mu def jaamu la loolu mu daganul ci ab jullit képp ku muy waxal ci liggéey war na laa wax bu fekkee ne Euh, waxtu la julli da cay bokk may la minute yoo xam ne bu jotatee nga mën a julli jàpp naa ne ku ko def it te mën sa liggéey dañ la ko nangul du dagan nag ki julli rek bëgg liggéey ba tax mu jàpp ne buñ ko teree julli mu daal di bàyyi julli ko borom bi dafa wax ne wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja ku bàyyi xel yàlla bàyyi xel yàlla bàyyi xel gi war Euh, dana la defal maxraj rek yarzuqhu min xaytu la yaxtasib bu gëm yàlla am dëgëree rek euh, mu dogo ji bu bàyyee liggéey booba yi dana am leen lu gën loolu incha allah waaye wax ne ki may liggéeyloo du jullit te nanguwul ma julli fii kon damay bàyyi julli bu ma ñëwee jibbee fay julli loolu ab jullit du ko wax dafa bokk ci ab dundam yàlla da ko bind ngir muy jaamu yàlla liggéey boobu muy liggéey ngir mu dimbandikoo ngir jaamu yàlla bu dee dox diggam ak jaamu yàlla allahu taala alam wargana makarim al axlaaqi ma saaku min bila siqaafi wa yazali lana yuwaqiru lkabir wajal kabirana yuridu lissaqir wajal qulub تناسل ولا تحاسد